Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de un cas importé, 14 cas contacts suivis par nos services. Six patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront d'hôpital dans les prochaines de santé des patients hospitalisés est stable. Le second cas grave annoncé lors de notre communication du 30 mars 2020 a été évacué hier soir vers son pays d'origine à sa demande. À ce jour donc, 190 cas ont été déclarés positifs, dont 45 guéris et 145 sous traitement. Le ministère de la Santé de l'Action sociale renouvelle son appel à la population au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. démb mardi fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2020 ci fukk ak juróom-ñeenti waxtu yu tegal ñeent ñetti simili Sénégal am na décès bu njëkkam ci Covid-19 mu doon monsieur Mababa Diouf ñu gën ko xam ci turu Pape Diouf maa ngi koy jaale ci turu monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale mu nekk ci réunion conseil des ministres président de la république son excellence Macky Sall gouvernement bi ak askanu senegal yépp maa ngi koy jaale mbokkam yi ak xaritam yi maa ngi gërëm di jaajëfal personnel de santé bi yépp ci taxawaayam ci suñu mbokk mi nga xam ne moo génn àdduna ci bésu tey bii mercredi 1er avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci téeméer ak juróom ak juróom test yi ñu def fukk ak juróom ñoo ci positif maanaam benn cas importé muy ñu jóge bitim réew dugg si ci suñu réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi juróom ñaari ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye ñaareelu cas bu grave bi nga xam ne wax nañ ko keroog ci le 30 mars 2020 éva évacué nañ ko démb ci demandu famille ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi ñu njëkk am senegal woññi na téeméer ak juróom wër nañu ci mu des téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoonte ak digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant voilà à l'instant le directeur de cabinet du ministère de la santé nekk porte-parole bu euh, ministère ba moom docteur Aloyse Diouf tey jii moo ñu defal le point ndax le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dañu nekk conseil des ministres euh, si loolu euh, weesoo dikk na ci li nga xam ne moom mooy génn ak àdduna Pape Diouf moom mooy premier cas bu nga xam ne nii jot nañu ko am te ku faatu ci jàngoroy coronavirus gi fii ci réew Sénégal gannaaw nag ba mu ko jaalee ay ay mbokkam si turu njiitu réewum président Macky Sall mais également ci turu ministre de la santé moom docteur Aloyse Diouf Diouf ñëw na def euh, bilan bi ñu ne tey jii 195 la ñu euh, jot a jot a defal test bi si 195 yooyu jàppale ni fukk ak juróom maanaam 15 ñoom la ñu gis ne ñoo amee jàngoroy coronavirus gi si 15 euh, yooyu benn cas importé la 14 cas. Euh, contact euh, kon nag euh, mënees nañu waa jàpp ni it ñaareelu cas grave bi nga xam ne moom la ñu amoon gannaaw ba kenn ki génne àdduna moom ñaareelu cas bi nee nañu si sàkkuteefu ak njabootam dañu ko yóbbu si pays d'origine am kon nag Sénégal mënees nañu wax ne fi ñu toll nii amatul cas ndax kenn ki génne na àdduna kenn ki dañu ko évacuer ci réew ba mu jóge woon kon nag si tënk ñoo ngi am cent 190 si ay cas bu ñu koy xayma fukk ñeent fukk juróom lañu fet ba ñu wér 145 jamono jamono ji ñoo nekk sous traitement kon nag bu ñu koy xayma moo ngi nii mujjee woon a am léegi nag euh, gannaaw ba ñu amee cent 195 ba test bi ñoo ngi am léegi 190 ci ay cas 20 districts ñoom ñoo la ñu la ñu la ñu touché ba tey ci ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement ñu ngi toll ci 145 cinq loolu ñu am 145 euh, mu mel ni kon euh, fukk dooleeku na ci mu mel ni ñi ci wér ñoo ngi amoon léegi nag ñoo ngi am ñu nga xam ne ñoom ñoo wér kon nag sant yàlla ñu ngi ñu ñu ngi fej nag ñoo ngi fej ñoo ngi wér euh, kon loolu la ñu amagum di leen fàttali ne total bi ñu defal euh, test ñoo ngi nekk 195 tey jii euh, loolu la docteur Aloyse Diouf wax ci li nga xam ne moom mooy bilan bi ni ñu koy faral di defee dañuy dem fii nga xam ne moom mooy diwaanu Touba fii la si diwaanu Touba Diourbel ñu fas yéene jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diagne day dañuy defal point bi chaque jour foofu sa diwaanu Touba tolluwaay jàngoro ji amul évolution 26 cas ngeen amoon fu ngeen ci toll fa mu nekk nii. waaw ah, am nay cas ah, coronavirus ñu hospitalisé ci ah, centre bu Darou Manane gis nañ ne juróomi cas wér nañ fii ci Touba ba dellu seen njaboot waaye ñu euh, fukki cas rek ñoo nekk en hospitalisation ci li nga xam ne euh, sànq. gis nañ ne am na benn cas. Euh, benn concession benn kër boo xam ne ber nañ ko ci euh, ndaw ñi nga xam ne ñoom ñuy cent quarante nga xam ne ñaar lañ ko waaye benn bi nëbë nañ ko beneen bi lañ ñuy dund ba tey à quarante mu mel ne euh, ci diggante Touba ak Mbacke xeex bi wàllu coronavirus ñu ngi koy amal ba tey ci wàllu sensibilisation wàllu waxtaan wàllu wàllu tamit jox askan ay jumtuwaay yu mel ne ay doomu javel ay détection ak tamit ay euh, alcogel ngir ñu mën a euh, xeexal jàngoro waaye tamit gis nañ ni am na ñoo xam ne ñu ngi joxe wàllu dund di ko dimbalee ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, nekk ci wàll bi nekk ay ay askan woo xam ne dañoo ñëw doole te ñu toogloo leen seen kër loolu yi bu ko ci dolli nekk na euh, situation boo xam ne bu doy waa tax na lool yi tiital na ñi nga xam ne mooy yow diggante bu baax ak baax tax na fi toll nii gëm nañ ne feebar boobu di euh, coronavirus am na euh, wuteeg liñ njëkkoon a defoon seen bopp waaye jamono yi surtout nii lii nga xam ne mooy coronavirus gëm nañ ko bu baax baax ne am na ah, ci diggante bu baax ak en tout cas askan bi ñu ngi wéy tamit di jànkonteeg li nga xam ne mooy way takk der yi ci wàllu couvre feu bi nga xam ne moom la ñuy amal saa su ne ah, ñi nga xam ne ñooy takk der yi ba tey ñi ngi nekk ak askan wi ci ah, li nga xam ne décret bi taxaw bu gént la ñu dem tëdd ku ne dem toog sa kër loolu daal euh, lañ mën a jàpp fii ci diwaanu Touba Mbacké euh, ci wàllu jërëjëf jërëjëf ma voilà euh, Abdoulaye Diagne ngeen doon am foofee sa diwaanu tubaa mu ñu doon dikkal jàngoroy coronavirus gi foofee nu mu fa toll xeex bi nga xam ne ñoom ñu ngi ko euh, sumb foofu localité du jour la ñu fas kéenee wutali euh, xam ngeen ne nag dem nañu fu nekk nag dem nañu Tëngéej dem nañu fu nekk waaye tey jii dañu fas kéenee dem sa goxub Mam Kumba Bang Saint-Louis foofee kii di Babacar Niang la ñu fay fekk moom it mu wax ñu jàngoroy coronavirus gi foofee nan la ñu ko dundee Babacar bu fekkee yaa ngi may déglu jàngoroy coronavirus gi yéen a fay def ay jéego fan ngeen ci toll ay euh, maa ngi lay nuyu di la gërëm di wax ni nag fii ci Ndar tamit euh, ñi ngi dund li nga xam ni mooy feebar bi ak jafe-jafe yi nga xam ni moom la askan wi di dund bokk na ci jafe-jafe yooyu jëm ci mbirum déplacement ci mbirum transport ci mbirum commerce waaye dem lente bi ci diggante askan wi loolu yëpp jamono ji euh, gis nañu nag ay jafe-jafe la yoo xam ni doomu Ndar yi ñu ngi koy dund ak boobu ñu décrété li nga xam ni mooy couvre-feu bi ak lii di état d'urgence ñuy wax ni nag fii situation bi créé na sax psychose euh, ak stress si ñëpp ñu nga xam ne rek euh, saa yu ñu yeewoo dañ doon dem di daani seen doole waaye ñi ci gën a sonn mooy ñi nga xam ne nag saa yu huit jotee ñu mujj obligé gaawantu rek mën a dellu seen biir kër ndaxte nag euh, niñ ko xamee rek autorité yi dañu jël décision décréter li nga xam ne mooy couvre-feu bi ak état d'urgence ñuy wax ni nag fii ci nar jafe-jafe yi doon de métti na waaye nit ñi ñu ngi continuer di respecter li nga xam ni moom sanitaires yi ak gouvernemental yi fépp foo jaar ci euh, marché yi euh, yoo xam ci lieu public yi la fépp nit ñi euh, ñi ngi saafante waaye nag joxante wu ñu loxo ku nekk yaa ngi sol masque wala bokk yaa ngi sol ay gants di éviter rek jegeyoo wala wax ak nit ñi ngir rek bañ a maalante li nga xam ni moom mooy feebar boobu boo demee ci kër yi tamit gis nañu ñu ngi teg ndox teg saabu teg eau de javel teg aussi ay gel alcoolisé loolu yëpp di wane ni nit ñi ñu ngi farlu feebar bi bi nga xam ni nag lëm benn àdduna di wax nii fii ci Ndar euh, boobu ak léegi feebar bi door ñaari cas lañ fi nemmeeku woon benn bi sax euh, ñu yóbboo ko Dakar ba jamono yi wér na waaye beneen bi nga xam ni nag moom la ñuy wax depuis samedi euh, mooy benn tubaab boo xam ne nag dafa jóge woon ni wàcc fi nga xam ne mooy Richard Toll daal di dal ci quartier bi nga xam ni moom mooy Escale foofu sax la ñu nemmeekoo ni yoon na feebar bi ñu jaadi ko nag internet depuis démb fii ci hôpital bu Saint-Louis ni dafa yor feebar boobu di Covid 19. ñuy wax ni nag euh, ci kàddu yu ñuy jëlee ci ñi nga xam ne ñooy autorités sanitaires yi euh, Mambey jaay mooy que ni euh, disposition yëpp yu ànd ak nuñ war a dal ak traitement bi war a topp ki nga xam ne rek moom moo am feebar boobu te jamono yi mu nekk ci hôpital bu Saint-Louis ñuy wax ni loolu yëpp tegu na ci yoon ba jamono yi daal ñu ngi koy suivre ñu ngi toppatoo aussi ñëpp ñi nga xam ni dañu nekkoon nag en contact ak ki nga xam ni mooy waa jooju nga xam ni nag ressortissant français la te mu dund feebar bi ñuy wax ni euh, enquête bi mëne nañ ko depuis ñetti fan fële ca Richard Toll ca Escale fa nga xam ni fa la dëkkoon pour am recensement général ci ñëpp ñi nga xam ne rek nekkoon nañu ak contact ak doomu aada boobu nga xam ni euh, jamono yi euh, lëmbe na foofu nag ca quartier boobu ñuy wax ni nag ñi nga xam ni ñoom la ñu interné woon ci centre hospitalier yi nga xam ñoo nekk ci Ngalel waaye tamit ci hôtel yi di Mermoz wala hôtel nga te doon leen suivre gannaaw bu ñuy waxee ne ay personnes contact la ñu na jamono ji euh, ñu ngi leen di tànnal ñu bu baax te euh, autorités yi wax nañu sax ñenn ñi wér nañu ba ñibbi nañu seen kër liñ ci mën a jàpp rek mooy euh, fi mu toll nii di xal yi mbir mi metti na jafe na mambay waaye nag doomu aadama yi ñu ngi koy dund ñoom seen yéene rek mooy feebar bi jóge fi nu mu gën a gaawee ñenn di tiit nag gannaaw bu ñu déggee ni confinement war na mun a am te mu nekk loo xam ne nag dina metti lool ci ñoom loolu mooy li ñu dundagum ci feebar bi fii ci Ndar Mame Ndiaye Babacar Niang doon leen ko jottali pour la Sen jaajëfal ko moom euh, Babacar Niang leer na wax na tolluwaay jàngoro ji foo foofee sa euh, Ndar ak jéego yi nga xam ne ñu ngi ko fay def euh, tamit cas yi nu mu fa tollee donte nee nañu pour le moment nii benn la ñu jàpp ne moom la ñu amee jàngoro yi coronavirus bi foofee sa diwaanu Ndar comme nag ni ñu koy defee dañu jógee Sénégal fës kee ne dem sa biti réew ànd seef Pape Mante mu defal ñu taxaw seetlu tolluwaay jàngoro ji foo foofee sa biti réew. Sénégal enregistré décembre bu njëkk jëm ci jàngoro bi di coronavirus ni ki démb bi le di wane teewaayu bi la jàngoro bu baax a baax fii ci réew mi gannaaw Sénégal meneen dëkk bi nga xam ne fii ci Afrique jàngoro ji mu ngi fay gën a law muy Afrique du Sud fu mu toll ni am nañ lu tolloog 1353 cas juróomi nit faatu ci ca Maroc moom 534 cas lañ fa signalé ci 33 décès dëkk yi nga xam ne fi ci Europe moom jàngoro bii di coronavirus di wéy di fa def ay victimes Italie wax luñ toll nii lu tolloog cent cinq mille cas lañ fa xayma Espagne am lu tolloog quatre vingt quatorze mille cas ci xayma yu mujj rek foofu ci Italie lu tolloog douze mille quatre cent vingt huit doomu adama ñàkk nañ seen bakkan gannaaw ba ñu amee bi la jàngoro di Covid dix neuf Espagne moom lu tolloog huit mille deux cent soixante neuf personnes ñoo ci faatoogum. ca France ci xibaar yu mujj rek lu tolloog trois mille cinq cent vingt doomu adama la ñu xayma ne. ñoom ñoo faatu ci biir jàngoro États-Unis gannaaw nombre bu takk bu ñu xayma ni am nañ ko ci doomu jàngoro bi waxtu wi kon 3400 personnes faatu nañ. ci bi jàngoro raw nañ Chine bi nga xam ne foofu la doomu jàngoro bi jógee tey jële buñ koy xayma rek lu tolloog 179 pays ñoom la doomu jàngoro bi di Covid 19 laal xayma bi ci doomu aadama toll ci 823 000 yi nga xam ne ñoom ñii la ñooy dox waxtu wi ak bi la jàngoro. jaajëfal ko baax moom Pape Mante Mboup moom la ñuy àndal euh, saa su ne mu defal ñu le point sa biti réew jàngoroy coronavirus gi di balaa gi nu muy dicté ay loi am sa euh, biti réew waaye ni ñu koy euh, jeexalee laata ñuy def rappel bi dañuy dem image du jour tey jii nag image du jour wax fa dëgg neex yàlla di ngeen d'accord ak man mu di kii di Pape Diouf waaye également manu di Bango ñaar ñi nga xam ne bokk nañu ci jàngoroy coronavirus gi njëkk a yóbbu ci Afrique ñu di ay Géejawaay la ñu woon ni ngeen koy gisee nii ñu ànd mais également euh, nekk ay ndaanaan ku si nekk si réew kon nag du ñu def lu dul ñaanal leen fa ñu jëm euh, gënal leen fi ñu jógee yàlla xare leen àjjana te ceet bañ leen jiitu euh, si seen bàmmeel mu ngook mam si di kon lu ñu def rek lu dul delluwaat laata ñuy tàggatoo fàttali li nga xam ne moom mooy tolluwaayu jàngoro ji tolluwaayu jàngoro ji gannaaw bilan bi nga xam ne tey docteur Aloyse Diouf si fàttali directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale nee na naka noonu it moom mooy euh, porte parole bi euh, moo def euh, li nga xam ne moom mooy bilan bi tey jii cent quatre quinze téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom ci ay doomu aadama la ñu jotee testé waaye nag bu ñu leen testé ba noppi fukk ak juróom quinze la ñu gis ne ñoom ñoo ci positif ñoo amee korona coronavirus gi ci quinze yooyu benn bi cas importé la dañu ko andil waaye nag fukk ñeenti ñeent ya cas contact la bu loolu weesoo ñaari cas grave la ñu amoon kenn ki génne na àdduna mu nekk Pape Diouf waaye nag beneen cas bi nee nañu ay mbokk comme dañu sàkku ñu delloo ko ca réew ba mu jóge woon euh, kon nag delloo nañu ko euh, mu mel ni kon bu ñu koy xayma téeméer ak juróom-ñeent fukk maanaam 190 euh, CIK la ñu am waaye nag 690 yooyu 45 faj nañu leen ba nu wér kon nag téeméer ak ñeent fukk juróom la ñu jàpp ni ñoom ñooy amee jàngoro yi coronavirus gi ñoom la jàngoro ji euh, tëlal loolu moom noo nekk euh, bilan du jour bilan détaillé bi euh, si fàttali Dakar ouest mi ngi am 52 Dakar sud mi ngi am 28 cas Touba 26 cas Mbour mi ngi am 13 cas Thiès fukk ci ay cas Dakar centre 9 Rufisque mi ngi am juróom-benn ci ay cas Guédiawaye am juróom-benn ci ay cas Dakar noor juróom-benn ci ay cas. Popenguine mi ngi am ñett ñu nga xam ne ñoo fa amee jàngoroy coronavirus gi Pikine ñett ñoo ko fa amee Ziguinchor ñaar la ñu am Diamniadio deux cas la ñu fa am Sangalkam deux cas la ñu am mbaaw ñaari kaa la ñu am Oussouye benn kaa waaye it euh, euh, Saint-Louis Richard Toll Fatick Yëmbal gox yooyee bu si nekk. benn cas la ñu am ñu wax ne kon réunion d'urgence bi démb woon ci ñaari district yi Dakar Ouest Dakar Sud conclusion yi incha allah suba dinañ ci euh, dikkax yéen ñu xam bañ décision lañ jël ci gox yooyu nga xam ne moom la moo waraloon réunion d'urgence bi euh, démb du ñàkk bi ñu jógee conseil des ministres ba ay conclusion dina sa am mu nekkoon le point du jour jaajëfal leen bu baax ci li ngeen ñi doon teew teewlu rendez-vous ëllëg lay doon 10 heures ñu ànd seex ministère de la santé Mame Mbaye xam naa ñu di la xaar rek euh, suba incha allah ci beneen point waaye damay laajte ba xam euh, am nañ dégg-dégg ni euh, Wakam am na lu toll ci 9 cas. Wakam moom li mu fa am si xam nga moom moo bokk si dakaar Ouest. Dakar Ouest foofu lu mu gàtt gàtt nee ñu euh, boo koy seet am nañu vingt ci ay euh, boo Dakar Ouest ak Dakar euh, Sud boo ko boolee am nañu lu mu gàtt gàtt 80 ci ay cas Wakaam fu mu nekk bokk na ci gox yi nga xam ne ñoo gën a am ay cas comme ni nga ko waxee juróom-ñeent ci ay cas kon nag looloo waral sax démb ñu woote réunion d'urgence ni ma la ko waxee rendez-vous ëllëg ñu wax leen lu sa mujjee. merci beaucoup alors ci noonu nag laay daal ji rek dellu ci ndikki suba teel gi. damay dëkki Biggi naa def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. maa sant alhamdulilah. alhamdulilah yaay Biggi ah. non du man yaay Maxtaar. du Maxtaar dafa dama ko fi teewal tey ñëwul ndeysaan. da ñëwul noonu. non non <laughs> dal. dafa xaw a am euh, tiis ak naqar. moo tax aussi ak euh, tey nga xamante ne des médias ndeysaan dañuy yeewoo ak ay nouvelles am na ci ñoo xam ne ay jumeaux lañ am. ah ci kër gi waa. macha ah allah. Mm. lii de mooy nag bigi mooy kaa dëggantaan man de lii yëngu ko ko am na ñaar ñu fi am ay jumeaux tey ci bésu tey ah ci kanam dinaa leen dévoiler seen seen ay tour insha allah alors euh, bigi moom mooy borom kaa <laughs> jumeaux fii ay jumeaux ñaari nit yu aussi am nañu fi kii woon fii ah man de yëguma ko de musuma gis sax ku ku kii daal mm-hmm. am nañu dina ci ñëw mooy borom kaa mm-hmm. ah. ayca ci noonu nag euh, <laughs> dañuy daal di dem rek naa Mansour Diop mu ne rubrique maam mbay bi mooy 10 heures na gaaw ci rubrique waa ministère bi wi ayca <laughs> ci noonu nag la daal di dem rek ci suñu astuce du on retrouve tout de suite Rokhaya <laughs> alors Rokhaya naka la nit ñi nga xamante ni euh, seen euh, loxo jotul seen ginnaaw noonu la ko wolof Njaay ji waxee di mën a defar seen gel hydroalcoolique. effectivement Asma na xam nga instant bi dafa tendance boo doon war produit bu gën a jar dañ naan la euh, gel anti. antiseptique moom mooy gaaw a jar instant bi nii parce que non seulement réew mi dañ ko soxla waaye tamit daf ciy baax daf ñuy aar moo tax fu ñu ko mën ci amee rek dañ koy wëri ba tax na bu ñu ko amul dañuy jaaxle moo tax tey solution lañ leen di indil bu fekkente ni amoo leen ko dem ngeen ci boutique pharmacie bi leen jege amoo leen ko naka ngeen ko mën a defaree seen kër wala bu fekkee comme ne ko Asma waxee seen loxo jotul seen ginnaaw ngeen mën ko defaral mu gën a sakkanal seen poche ngeen gën a mën a économiser léegi lay doon ñu ànd ceeg maam si di seetaan léegi benn vidéo démonstration balaa ñu ñëw wan leen naka ngeen koy defaree. Bloquer soi-même une solution hydroalcoolique, la solution face à la pénurie de gel hydroalcoolique dans les pharmacies. Le la portée de tous et ma foi, les clients de cette officine n'y voilà rien d'insurmontable.

83,33 millilitres d'alcool, donc il suffit d'avoir une éprouvette, hein, et on va aller à 83. Voilà, 83. Donc on est tous l'eau oxygénée, c'est un produit très simple. Et là, on va en mettre 4,17 millilitres. Voilà, 4,17 millilitres qu'on va rajouter dans notre gel, dans notre alcool.

100 ml de gel hydroalcoolique selon la formule OMS. Le gel hydroalcoolique, ce n'est pas un médicament, c'est ce qu'on appelle un biocide, qui euh, doit répondre à une réglementation très particulière. Alors actuellement, à les autorités sont en train de demander des dérogations pour que les pharmaciens puissent fabriquer les gels hydroalcooliques et les délivrer au public. Je pense que la meilleure défense contre le coronavirus, quand même, Et ce ne sont ni les médecins ni les pharmaciens qui diront le contraire. Avoir les mains propres requiert cependant une technicité certaine. Le gel c'est pratique lorsque est en extérieur, mais lorsqu'on a accès à un point d'eau et à du savon, c'est quand même la meilleure technique. Mais depuis la présence du coronavirus en Guyane, loin de s'en les mains, les médecins en première ligne face aux patients en appellent à une meilleure Athlétisme, nous... Et je pense qu'il faut mieux informer les gens et pas que en français. Je pense qu'il faut faire toutes les populations. Hein, on connaît la, la, la, la, pluralité de la population en Guyane et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte parce que l'essentiel le, des personnes qui sont euh, euh, créolophones euh, ne savent rien, notamment créolaïciens ne savent rien de ce voilà comme ni ngeen ko gisee ci vidéo bi asma noonu la ñuy defaree euh, gel bi nga xamante ne moom mooy hydroalcoolique pour nettoyer suñu ay loxo actuellement fu ñu mënti toll dañu dafa war di ñu accompagner mais nag dafa bëri façon ni ñu koy defee gis ngeen noonu dafay am euh, alcool mais nag yëpp da nga koy doser euh, pour nga mën a dépasser limite bi mais aussi da ngay am li nga xamante ne moom mooy glycérine su amee glycérine dafay tax sa loxo dafay niin dafay gën a maintenir li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom moom mooy njëriñ bi waaye itam daf ciy baax nga ajouter tuuti essence parfois ci euh, gel bi ngay defar comme ça xet bi mën a neex ndax parfois da ngi gel yoo xamante ne dafay xeeñ menthe yi di xeeñ orange yi di xeeñ euh, essence donc loolu lañ ciy def dañ ciy def tuuti rek juste pour parfumer ko mais nag comme bii ni ngeen ko gisee bii nag gel d'aloe vera ngeen koy defee bu ñu nee aloe vera dafa bëgge ay vertu da ngeen koy tijji nii bu ngeen ko tijjee nii ngeen jël gel bi ci biir ngeen euh, def ko ci pot yëpp da ngeen koy euh, da ngeen koy doser gel baa ngi nii bu ngeen amee euh, cuillère ngeen recueillir li nga xamante ne moom moo nekk ci biir li gluant moom ngay dindi def ko ci pot boo paree daal di ci def daal di natt li nga xamante ne moom mooy sa alcool alcool bi 70 degré xoolal ma moom bi gi nee na loxo yëpp dafa koor looloo tax nag ñu lay wax vertu yi nga xamante ne moom moo nekk ci aloe vera bi ah lan lay vera bi da ngay def alcool nga natt ci 83 millilitres daal di def sa eau oxygénée wala nga def glycérine nga daal di mélanger ko daal di koy def ci sa pompe di ko pulvériser ci sa loxo yi di nettoyer à chaque instant waaye tamit lu tax ñu taamu ci aloe vera bi parce que bokk na ci li nga xamante ne dafa am euh, antimicrobien la en même temps ba pare dafay hydrater sa loxo maanaam koor yi bi ngi am ci loxo bi ngi wane sa loxo yi ba xool yow boo utiliser aloe vera bi sa loxo yooyu di koor dootu ko am. lii ngeen di jël euh, nana daal di koy boole tuuti glycérine pour mu niin hmm? mais gel yi day lakk loxo waaw parce que dafa am yoo xamante ne ni ñu koy defaree baax alcool bi day fort alcool bi day fort looloo tax ñu koy jullee pour ñi nga xamante ne seen kër yi actuellement war ngeen cee defar lu bëri jox xale yi jox mag ñeek ñëpp képp kuy génn mu dugal ci saagam wala ngeen dugal seen poche moom moo gën a wóor moo tax ñu indi leen solution en cas de rupture parce que pénurie mën na am ngeen dem ci boutique bi leen gën a jege du ngeen ko fa am solution baa ngi nii alcool la glycérine ak aloe vera wala nga jël li nga xamante ne moom mooy alcool ak eau oxygénée nga def ci tuuti huile pour sa loxo yi mën a nii ngay daal di nettoyer sa loxo à tout am na solo. man de lii daal ni nga ko nii nga ko indee tey. nii laa ko indee tey. na ma de. c'est bien ndimbalu njaboot la. noonu la Asma da ngay économiser temps en même temps dafa économiser sa xaalis ndaxte parfois di nga koy jaayee dafa cher donc lii nii mën nga ci am quantité bu bëri nga daal di ci def ci sa ay bouteille rek daal di koy jox bëgg naa la ci may benn nii laa ko indee waa gis nga en multicolore enfant enfant <laughs> tender <laughs> merci beaucoup en tout cas Rokhaya Papa San on revient aux, aux, aux mesures de prévention naturelle ça c'est bio quand même c'est excellent. y a un peu de chimie dedans. c'est excellent. ñu ngi ci fànn bi yow su may soxla nga wax doo bëgg a wax. mais par exemple. bu waxul ci nag ci Macky Sall rek du wax ba xala askan bee ko ñor nag. askan bee ko ñor sax affaire bi. askan bee ko ñor. te daa wóolu laaj bi maa ko xool kii ba muy départ ci gel bi nga naan supp ak maa ko xool. mais fi ngay xool gel bi nekkul foofu. fan la ne bu ñu lëre looy xool fii. yaa ngi si sa paasal yow yéen yéen dee leen may dégg wax naa leen ah. bu ma leen annoncé nouvelle ngeen bañ ne du ngeen ko gëm baax na. ah fant bi nga. mi ngi ci fant roq. ay ay ah. moom roqee yàgg nañ de xam nga bi. xam nga Makhtar nee na ko ci sublime sànq. nee na ko ci sublime. ah, ah oui oui oui dañoo yàgg macha allah nee na ko sànq ci sublime la. yow rek nga yow tamit mais c'est un homme. ñoom ñaar yàgg nañ de am nañ kii. <laughs> mais pas Assane c'est un homme nag bi kii la. waaw mais c'est vrai. en plus. sànq euh, tu es sublime bi moom maa ko fekkee. kenn tu es célibataire non. tu es sublime. tu lui as dit que tu es. waa ah, eh, mais day eh, lu ma la wax yow lu ma la wax yow. non mais bàyyi sa dibi apprécié noonu lay apprécié may ma may ma yow lu ma la wax. en tout cas tu es sublime donc. Ah. ça porte à ah. confusion de rejoindre la thèse. Euh, de Bibi comme quoi. elle dégage waaw elle dégage te ñoom ñaar des fois sans maquillage ñoom ñaar rek fay nekk. damay joxe ay révélation bi gi dégg naa koy sos dangay gaaw a jàpp corona. corona bi gi man mi gelu ba lakk xam bi du ma jege. bu leen ma sonal da ngeen wax nit ñi avoué leen li am moo gën paasan day di yaaram onze billah seydi bi gi ange bi gi macha allah seydi moxtaar seydi sa fan di ko éblouir yéen ñaar ngeen di lëre nit yi mais arrêté nekk wax leen seen relation bi mu siiw moo gën. li ma feebar yëpp xew na fi. non lii xew na fi ñoom yàgg nañ ils ont fait quatre ans je sais pas. ah, ah bon ah ouais. ah, ah bon Biggi yow foo ko ah. jëlee source bi. mais eh, weddi wuñ ko weddi wuñ ko est-ce que tu as entendu l'un ci ñoom ñaar. tey la ban date tey la ban date qui ne dit rien consent. tey la ban date. on est euh, le 2 avril. le tey le 2 incha allah. de. le 2 di. ah tey le 2. non. tey la premier. waaye yéen bàyyi leen ma tey la le deux. ah da ngeen na xam ngeen lan la ay ay magay seetaan. <laughs> c'est bien. mais mais n'empêche que ni fente bi tu as vu tu as. <laughs> alors Pape Assane non non ba xoolal city dafa dañoo gaaw sa xarit yi. non mais dañuy jël lii coupé ko ko yóbbu. waaw mais bon bon tu sais quand quand on dira une chose pas. c'est dans la conscience. ah su amee mhm. c'est ici su amul c'est ici. bu leen faa kon am na. ah bu amoon tamit du dara bu leen faa xam ngeen benn affaire. Hmm. est-ce que xam ngeen benn affaire. Hmm. Ahmed tam takk na jabar démb. Ahmed man ay dara. nakaat na. Hmm. Ahmed kon mu ngeeg ñett. Ahmed ay dara waaw. ñett léegi macha allah macha jabar démb. ah dëgg la dëgg du dëgg de day poison. Ah, tey la premier de <laughs> dafa ñëw boobu noonu muy wax. est-ce que xam ngeen benn affaire. Ah. le paludisme a tué en deux mille dix neuf. revenons aux cent trente cinq mille. africains mm-hmm. quatre cent trente cinq mille africains. cent trente cinq mille africains. xam nga avec Europe ak ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi ci cent mille plus de cent mille cas aux États-Unis ñoo ëpp cas. Mm. mais lim benn bi atteindre guñ ko Sibiru. rey na ci Afrique quatre cent trente cinq mille personnes déggu leen fenn fu média occidentaux yi yuuxu tasaare ko xataraayu dañuy yem rek ci il faut ñu wàññi il faut ñu régler comme si de rien n'était junj la rek pour ñu mm. bàyyi xel baa ngi dem xel Aïcha mm-hmm. ñan ñoo fi wasin ay jumeaux ñu fi wasin ay jumeaux ah naa bàyyi ba ci kanam rek ma wax ko amul problème vrai ou faux seen relation bi yéen ñaar man dama choqué. nga choqué mais ba léegi dégguloo benn. non xam nga ah, il ne dit rien consent. défendre tant qu'il est clair dama xamul lan moo tax Biggi tamit war a mën a wax paasan loo xam nga paasan. dem na ba pare fant bi côté bii la nekk nekkul côté bële. ah yow ak ñaari côté yëpp a fant. Aïcha ñu di la jaajëfal bu baax a baax raxee. merci beaucoup ah, lu ne yi fii xew lu ne. loolu laa leen indi loon tey euh, téléspectateurs yi di leen nuyu bu baax a baax di kontaan seen encore une fois di leen wax ne leen euh, astuce baa ngi noonu jël leen ko ngeen di koy appliquer ndaxte non seulement alcool bi moom microbe bu ko seen instant bi nii da ngay daw ndaxte microbe bi lay jàpp dóor ko ba mu tëdd mm. liif ko ba mu daw <laughs> donc loolu dee leen ci nettoyer seen loxo ba mu set wecc ngay na encore une fois maa ngi koy def en gros coucou ndax mu ñuy suivre actuellement merci beaucoup euh, Papa Sane ba c'est comme ça que je ma Ibrahima Diouf kilifa bi nekk ndar mhm. ak soxnaam Marème Seye hmm, je tenais à le dire parce que am na ñoo xam ne bu lay seetaan ak passion baax na ah mënuñu leen defal dara justement yëg ne que voilà parmi tant d'autres mhm. waa ndar nag gars yi may naan dama bëri ci te doom ndar la mhm. mais te ñun waa Ndar dañoo wane ka sa kaw waaw ca kaw a kaw tubaab la. doomu Ndar laa. Ndar Ndar tiir nag. Sayer Mari Candar Candar ak Cabaay. Sayer Mari. Sayer Mari Gueye. Lamine Bakar Waly. alama Mahi moom la ñu dëppee pom ba ca Ndar. yow loo bokk Sophie Gueye Bounama Khalil. Ah, ala may maam Sophie Gueye loo bokk may maam ñoo ñëpp may maam lañu. may maam ñoo bokk maam ñoo ñoo bokk. Seer Marie la maa la ko wax Sénégal ñun ñëpp benn ah, bopp la Sénégal nga bokkal nag. Mm, ma côté yaay. mu ngoog ku bokk Rufisque bokk Ndar ndax yëg nga lool. ndar waaw benn la ñoo doon demalante. Mm-hmm. ah mu ngi noonu bato bi dem bato bi di nuyuwaale Jacoub euh, euh, Jacques Yacoub Negri moom it euh, ca Ndar la bàyyeekoo donc wax dëgg yàlla daal ndar-ndar bi noonu la mooy suñu cas Aïcha ma di nuyu waa ndar yëpp di leen def un gros ay grand coucou ah mm. merci beaucoup ñoom dañuy seetaan bu baax a baax mën teraanga ñu na ñu na bàkk ba muy neex mm. Aïcha ñu retrouver tout de suite Biggi ci li nga xamante ni mooy lu et vu sur le net <laughs> Paasan loo wax nee na dina ma ah. nee na dina ma premier avril balaa émission bi di jeex ma teel leen ko wax lépp loo leen fi dégg rek ay sosa Pa Assane Seck ah ñun ay rakam lañu nag. te émission bi léegi mu jeex séeré acteur bi dindi ko dañu waxante dëgg. <laughs> dégg nga bëgg a paasan waaye paasan mi yow Marodi ñu ngi perdre seen valeur <laughs> paasan dañ ko war a jël yóbbu ko Marodi exposé ko. tegal est-ce que doo bàyyi publicité bi tamit. ah mais ah garaawul man bés bu leen di. <laughs> Birame Gueye maam ndar la jóge waaw dëgg la kay. ma tàmbali wala. tàmbali kay tey dañuy comme euh, originaire Rufisque nga xam naa nag sa mbokk Rufisque waa bii di. <laughs> yow eh tey lii du ma ko nangu de yow yëg nga sama mag ji te te lii du ma ko nangu doo ah Paasan mooy suñu da nga fàtte ni kilifa ñun fii. mooy producteur ah. ah. chef projet. mooy chef de projet suba ah. teel kay. nañ ko jiital yeneen teg ci ak yeneen ñii wax waxu promotion. Paasan moo diite lépp yéen. am mi ngi noonu xam na ñooñu tey jii euh, seen promotion du mën a yomb ndax kii nag moom Sall Ngaari Lam Tooro lañ koy wax <laughs> mais je ne parle pas du président de la République du Sénégal Amadou Samba Sall moom. ah Sall Sall ah Sall may nga paasal lu mu. non moom moom moom moom président bi daf ko war a mere. Mm-hmm. bu baax parce que ah moom bokk la président Sall la sant mm-hmm. moom moom kon Sall. askanu Sall Sallee nii Rufisque la Sall yi wute Sall la sant. Sall na non non Rufisque la tamit. lu tax ñuy fësal sant wute na. mais bi gi seetlu nga dara uh-huh. indi nañ fi faux prophète. paasal gedd ko ni bokkul Rufisque. daf ñoo wax. Ah. faux prophète Rufisque la dëkk mu ne du moom. daf noo rax keneen ki. Euh, kii dëkku fa Jóob la sant. kii nu mu sant nga ne du lébu. kii nu mu sant kii Sall la sant. bokk fa Rufisque la dëkk dëkku fa. mais léegi sant amatul. ah mais sant dëkkul fenn. ma ne dëkku fa man Sall la sant dëkku fa man président ndax président Sall bu baax la bii du Sall bu baax. ah président danga koy jeter ay fleurs. président dafa baax. dëgg la waaw danu kaa jàppale. ku baax la vraiment. di ko dimbali nag mu bañ a juum. may leen ma ma ma kii parce que li ma dese ci docteur Samba Sall du docteur kat Amadou Samba <laughs> Sall la moom Rufisque la dëkk donc fac médecine la nekkoon <laughs> fii ci euh, Dakar mais def na fa deux ans ñu dàq ko nag mu dem fële ca ISM def fa deux mois ñu dàq ko rek mu dem di falsifier lu ne rek di def lu ko neex di falsifier entêtu hôpitaux yi di def test corona mu am fit lool ku ñëw mun la am nga wala amoo corona ndeke mi ngi dédom mi ngi endommagé ay affaire mu ngi def euh, ay aussi euh, affaires yoo xamante ni faux usage de faux la daal vraiment également am na benn reportage boo xamante ni Ami Seck journaliste Dakar Buzz jot na koo def moo tax ñu indi ko pour tegal leen ko ngeen déglu ko Maam di wan ñu. addu si mbirum docteur Samba di faux médecin bi ñu démasqué moom nag si foo CV wam boobu da see xamle ni rekk moom Amadou Samba médecin spécialiste en développement industriel du médicament la titulaire MBA ca ISM waaye moom moomee nag amul benn si diplôme yooyee mu wax ni rek moom moom moom la am euh, kenn si ay patient wam sax dana ko dénoncé moom nag docteur Samba parcours am dëgg du lenn rek du dul faux médecin membre du CCR cercle des cadres républicains bu jëwrin bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr dirigé moom sax daal dinay rek doté ab carte professionnelle de médecin bi nga xamante ne nii rek ministère de la santé moo ko délivré ba noppi am cabinet këram euh, foofee ca Rufisque euh, ca weeru novembre atum 2019 participé woon na sax ci panel de haut niveau des cadres républicains ak njiitu réew mi Macky Sall euh, sa King Fahd Palace ci weeru janvier bi ñu génn nag moom moomee eh, Tayyip Erdogan di chef bureau économique du cabinet du président euh, recevoir woon na ko ca présidence de la république eh, si visite bu njiitu réew ba turc doon amal rek ñaar fukki fan ak juróom-ñett ba tey rek si weeru janvier bi eh, tamit rek invité woon nañ ko ca RDV mu doon wax si problématique prise en charge hémodialyse yi ñàkku ba garab bu fajukaay yi ak i ay question d'actualité ba ba loolu weesoo ba tey ci weeru janvier bi moom faux médecin boobee euh, participé na woon ci réunion des cadres républicains ci teewaayu ministre yi di Abdoulaye Diouf Sarr ak Mor Ngom ci weeru mars bi ñu nekk nag la nekkoon en tournée ak fondation Servir le Sénégal euh, bu première dame Marième Faye jiite ci lu ñet rek projet Rama bi ñu euh, lancé woon weeru décembre atub 2018 ngir dimbale mag yi ba tey rek ci mars mi ngi ci woon au au conclave des cadre républicains ak ministre yi di Abdoulaye Diouf Sarr Seydou Guèye ak Mame Mbaye Niang laata rek muy dem ci émission ngonal bu ñuy amal ca TFM doon addu rek ci sujet d'actualité yeeg ordre sanitaire bi moom sax jot na examiner ay patients yu bëri yu amoon ay symptômes Covid 19 bi nga xam ne rek da leen doon testé négatif laata mu leen di jox ab bulletin de santé yu am rek en ak soo bu institut Pasteur bu Ndakaaru gannaaw ba mu falsifié seen en-tête bi cas suspect yooyu yëpp nag daal nañ leen di mettre en quarantaine ba mbir mi éclaté moom sax docteur Samba mu ngi doon liggéey ak ay société yu mag fii ci Sénégal di leen rek testel seen employé yi gagné sax ay marché de prestation euh, ci médecine du travail mais lata pandémie Covid 19 bi benn ajuma nag la police piégé ci locaux yu institution financière susmentionné ba ñu ko woowoon rek ngir mu defal leen ay prélèvement ci ay cas suspect ba ñuy amal nag euh, perquisition bi këram ñoom police yi la ñu fa fekk rek ay poche de sang ay bulletin d'analyse ab stock thermoflash ay gel hydroalcoolique ak yeneen i jumtukaay rek nga xam ne sax bokk na si ay contrat yu koy liyeek structure yu mag yu nekkee si réew mi mi ngi yoroon tamit rek euh, moom usurpateur boobu ay tampon frauduleuse yu bëri lool yu mu confectionné woon ak ay trouble paraticien de la <laughs> kii de doy na nag ndax dafa am fit moom mii di euh, faux médecin bi di Samba Amadou Samba Sall Amadou Samba Sall nag moom dafa commissaire Sankare moo euh, wàcc ci ay gom ba pare daal di mener enquête bi ba daal di koy jàpp moom Amadou Samba Sall bu ñu fàttalikoo invité woon nañ ko fële ca Ngonal invité ko fële ca euh, yeewu leen aussi sur la TFM moom IGFM ba mu xëyee daf ñu xamal ni que machine bi emballé wu na pour le faux médecin Amadou Samba cuisiné par les lumières de la sûreté urbaine de Dakar Dakar l'homme qui se faisait passer euh, pour un cardiologue tantôt pour un gynécologue et finalement passé à table moom aussi docteur Samba cancérologue la woon cardiologue la woon gynécologue la woon docteur Samba da doon def ay prélèvement sanguin effectué après des recherches sur Google moom Google la daan fanaan nag moom bu xëyee daal di dem xool def ay recherche moom dafa confectionné fausse carte professionnelle docteur Samba euh, ba pare ki ko confectionné carte bi moom aussi dañ ko jot a les agents qui avaient été testés au coronavirus par docteur Samba déclarés négatifs par Institut Pasteur des virements de la RTS effectués dans le compte de Medicalis la société docteur Samba docteur Samba dafa ubbi woon sax société ki am na fit léegi moom ci boppam euh, dafa utiliser enquête clinique Nabi bu Rufisque daal di am li nga xam ne moom la bëgg man nag dama doon wax ni que peut-être comme am na jot na ñu mu am ñu mu jot a biir saalu opération ba peut dafa amoon ñoo xam ne dañ ko doon assister xëy na da doon wax yëkkatil foie bi xoolal pancréas bi nu muy féetee dugalal fii sa loxo aal bi fii wala yëkkatil ma kii bi ñu xool waxtaan bi fu mu féetee parce que yenn fit yi courage bi nga xamante ni moom jot na koo am man daf ma éblouir vraiment ah. ba ci ki nga xamante ni moo di Sandiogu muy euh, animateur fële ca groupe Walfadjri am na benn analyse boo xam ne jot na ko cee def neexul dégg nag incha allah ñu xool. à présent notre deuxième invité docteur Amadou Samba ñu ngi lay nuyu euh, gërëm la ci sa teewaay euh, ci euh, yeewu leen bi d'abord dama bëgg ñu wax ci seen panel bi nga xam ne ni li ngeen ci boole bëri na de <laughs> bëri na mais comme quoi yi ngeen boole mooy yi ñuy gàllankoor ñun sénégalais euh, diabète on en a parlé euh, il y a quelques jours obésité hypertension artérielle euh, facteur risque cardiovasculaire pourquoi ngeen boole yooyu yëpp ci benn panel ba ci xeesal bi da ngeen ci waxtaan pourquoi. Ah. ñu ngi lay nuyu bu baax Pape Cheikh di la gërëm. Mhm. di nuyu sa téléspectateur ak sa téléspectatrice yëpp. Mhm. donc euh, da nga may may déjà avant may wax ci panel boobu. Mhm. am na si benn cadre bu ñu ko defee. Mhm. cadre bi mooy euh, sunu cérémonie de graduation. ah bu collège de voilà bu collège de médecine Saint-Christopher. ok donc euh, si loolu noonu ci la ñuy dérouler sunu ay programme très am solution bi wala yéen seen wàllu bopp yéen a ngi ci laboratoire di ci liggéey aussi pour kenn ku fi nekk fii ngeen piqûre ko mu wér est-ce que loolu yéen a ngi ci wala nekku ci loolu. ah xam nga nit ñaan toujours fii bëri na. article de recherche yu am ñun bi ñuy préparer sunu soutenance fii faculté de médecine département pharmacologie ñoom professeur Gata Yoro Wele ak sëñ Omar dañ daan gis ay article de recherche yu bari yoo xam ne ay recherche avérée ci lu xobu mango di def euh, kii bi euh, goyaab bi lu muy def xobu mango lu yem ci xob bi lu jëm ci racine bi léppay faj. coronavirus bi yéen ñi nga xam-xam ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci. wutal ko liggéeyu leen ci. vaccin wala ko comprimé wala lu koy éradiquer daal liggéeyu leen ci. non pas liggéeyu ci. waaw mais. en partenariat ak yeneen dëkk. Ah, ah. ñu ngi jokkalante. ñoo ci 30 yi ñu bokk 30 pour cent yi moo ñu ngi ciy waxtaan ngi ciy waxtaan. mais ñu naan développe recherche développement dëgg. bu dee wax dëgg rek fi. lii di lu doy waar lu xew ci réew mi nit ku taxaw yëkkati ay kàddu wax ni docteur la doonut lu muy nëbb waaye ne fang olof ne lu ne fang kenn du ko jeex dem ci plateau télévision def ay émission ñu gis ko ci ñaari émission yoo xamante ni benn bi ki nga xamante ni kii moo fa ne animateur la beneen bi ay comédien dar ko mu yëkkati kàddu di wax ci wàllu médecine lii nag di loo xamante ni lu doy waar la parce que lii day wane ni ñi nga xam ni ñoo ko dalal nekkuñu ñoo xamante ni bii ñoom ñoo war a dalal jëmm ju mel nii ak ay comédien li may laaj mooy ndax moom moo tànn ngir ñëw ci plateau bi wa ilaa ñi nga xam ni ñooy anime plateau yi ñoo ko tànn bu dee ñoom ñoo ko tànn